Thank you. ak dikk nekk ay jafe-jafe fii ci dëkk bu sell bi di Touba ñi nga xam ne nag ñoo di taximaan yi ne fii ci centre de santé bu Daaru Manaan fii nga xam ne fi doon denc ñi nga xam ne ñoom la jàngoro ji jot ci coronavirus ay jafe-jafe neen la ñuy dund lanoo xam ne moo di ne ñi nga xam ne ñoo di askan wi jamono gi daw gu metti la lu dëkk ak ñoom. centre bi ni mooy centre bi nga xam ne fii si Touba moo fa njëkk a recevoir. mais hôpital bi instant bi dañ ko tëj oto yi liggéeyatuñ taxi yi fi doon daw instant bi dawatuñu dañuy xanaa sëfoor ak fu mu rek bu ñu xëyee ñëw yooyu waaye fi moom liggéeyutul moom kon téye na liggéeyu taxi bi wamaa jële la xàmmee oto yi bañ cee dugg mais même ñi ñu daan woo sax taxi ñun ñu leen di dem jën jël seen kër den yóbbu ñu doon ay client léegi sax wax dëgg yàlla owootuñu owootuñu waaye nag ñu ngi yàlla oto yi ñi ko xàmmee ñu bëree bëri dugg man am na ñu may woo téléphone sax naan ma jógal foofu waaye nag comme que fi daan daw jiite am mbooloo ñu ne fi ba nëgani si ni ñu dem loolu suñu borom dogal ko fi jéem li ñu docteur yi wax rek ñu jéem cee góorgóorlu waaye nag mënuñ bàyyi carrément Euh, ñun ay taxi lañ yoo xamante ne bi ñu ngi doon rang fii ci buntu bi buntu hôpital bi bi ñu déggee feebar bi def nañ comme ni ko ñëpp di defee rek te it yàqal nañu ne encore suñu liggéey ndax euh, dem nañ ba xamante ne bii boo dee taxi bu daan rang fii ci arrondissement la bu ñu la xàmmee sax euh, duñ la duñ la duñ la duñ la duñ la jël wala boog boo taxee fii nit ñi dañuy ñëw romb la dem jëlee ci sa ginnaaw taxi kon xaw naa kon paralysé kon suñu liggéey. jafe-jafe yi moom bari na trop. xëy na nag dinañ ko nangu ndax euh, dogal sunu boroom la tey lu ñëw ci àdduna la ñun ñëpp ñu gisandoo ko wante du tere nag ñu bëgg kilifa yi bàyyi xel li nga xam ne mooy secteuru taxi bu Touba ndax am nañu juróom-benn fukki garage ak ñaar yoo xam ne yëpp ay garage taxi la ay mbooloo dafa dajaloo. mbooloo yooyu ñi ci ëpp ay néew ju doole lañ rawatina ñi nga xam ne ñooy coxeur yi nga xam ne bu ñu xëyul du ñu am dépense te ñu bari fi mu toll nii pour ñu am euh, dépense nekk na seen jafe ñoom ñi sax naam jamono ju nekk ñi ngi jëfandikoo ñi nga xam ne ñoo di way kër docteur seen i digle ngir mën a mucc ci jàngoro ji di coronavirus moo ñu yëkkati seen i kàddu ci kilifa yi yooyu lée wax dëgg yàlla boobaa léegi moom lépp loo xam ne ñu am ko ci xeetu matuwaay ñun ñoo koy débrouiller suñu bopp waaye loo xam ne indil nañ ñu ko ko muy ci wàllu ñu jiite ñi nga xam ne ñoo nekk ci sous préfecture wala ci commune bi ndax euh, gis nañ ñuy génne lu mel ne ay madaar ay eau de javel et cetera ak ay euh, ay gel ak yu demee noonu di ko yóbbu fu bëree bëri waaye fii moom wax dëgg yàlla accès gu fi yi fi amako su néew di jéem a jënd ay pompe gel di ko def ci chaque taxi bu nekk la benn pompe nga nekk ci boo xëyee di ci laal ak it client boo yebee client jox ko mu laal ci ak yu mel ne ay eau de javel amaguñ ci ay ndimbal moom wax dëgg yàlla ci mesure d'hygiène yi moom taximaan yi jël nañ ci seen kéemtulaay kàttan waaye bu ñu sañoon nga xam ne dañ koy dimbali muy ay eau de javel ay madaar loolu itam bëggoon nañ ñu jàppale ci taximaan yi ndax am na ci ñoo xam ne bëgg nañ ko waaye mun nañu ko am te comme que nag gis nañ ne mi ngi ci ministère yi mi ngi ci bërëb yu bëri itam bëggoon nañ ñu jàppale ndax commune bi nga xam ne sax mooy commune bi Touba am na lu mu jot a séddale waaye loolu ba nëga ni taximaan yi dafa mel ni moom boolu lañ ci ay mbiram ba tax na jotuñu benn ndimbal boo xam ne eau de la wala euh, zel la wala madaar la wala leen te yooyu yëpp dañ koy soxlawoo parce que taxi boo xam ne mbooloo daf ciy dugg saa su ne buñ sañoon itam ko nettoyer nettoyer boo xam ne dafay sax toute la journée am tam li nga xam ne mooy ay gel ci suñuy oto di ko baaxee li nga xam tam mooy client yi mais am tam masque am gants yi nga xam tam dafay tax xaalis yi ni jokkalante tam dina dinañu mën a mucc ci jàngoro boo xam ne mel na ne topp xaalis boobu. lii de couvre-feu nag ñu nemmeeku ko ci biir réewum Sénégal fépp ñoom ñi nag ay jafe-jafe yi neen lañu ciy dund bokk na ci jafe-jafe yooyee yenn saa ñu yóbbu ay malade leen ci ay hôpital fii ci dëkk bu sell bi di Touba waaye su lu dëppee ay jafe-jafe yi neen lañu ciy dund. Euh, leen tamit bëggoon nañ ko fekkante ne bii mën na nekk bu fekkente ne comme par exemple léeg-léeg bi nga xamante ni moom lañ jox mi vingt heures jot nga génn dem soo génnee doon yóbbu ko mel ni malade wala yu mel noonu nga yóbbu ko ci hôpital boo dëppee war a dellu siwaat ngi ñaan lool suñ ko mënee boo dee dem nga hôpital ban bin ba yóbbu yóbbu ko soo yore malade moo mën na laa bañ ndax boo expliqué ni kii malade dama ko yóbbu ci hôpital bi mën nañ laa waaye nag boo demee ba yóbbu malade bi ba dëpp nag kooku war nañu a may ko bindee waxee da nga ko yor pour mën a delluwaat sa kër ndax léeg-léeg a yóbbu nga yóbbu ko mais nag soo demee ba war a dëpp nag foofu mooy problème mën nga ko yóbbu ci koo war ni kii a loolu dañ ci am ay jafe-jafe loolu moom bëgg nañ ko ñu bu baax dolli ci nag couvre-feu bi nga xam ne booy xool huit heures taximan dootuñu mën a circuler te ñun amoon nañ ci xalaat parce que tey bu fekkee dañoo jox askan bi huit heures taximan yi au moins leen may beneen 30 minutes boo xam ne dinañu mën a yóbbu clients yi daw ñibbi seen kër. ñii di taximaan yi nga xam ne ñu ne ci centre de santé bu Daaru naan di wéy ak i jafe-jafe yoo xam ne ñi ngi koy nemmeeku ci seenu liggéey yi.